wàllu dayoo arbitre mi ngi laaj ay sisam laaj ñaari mbëri ba xam pare nañu di wax ak Bébé Diouldé am na lu muy wax ak laaj na ay nañ Bébé ma ngay na Bébé Diouldé pare na arbitre mi ngi waaj a sifflé arbitre na Youssou Ndour ak Bébé Diouldé ñu ngi lewaatoo Youssou daw na taf ko ñu ngi lewaatoo ñoom ñaar Youssou Ndour Bébé Diouldé Youssou Ndour moo fere seen ndeyjoor Bébé Diouldé mi ngi def déplacement latéral fere seen càmmooñ ngemboo ngem xonk Youssou ngemboo ngem bu am lu zone ñu ngi lewaatoo ñoom ñaar Bébé Diouldé Youssou Ndour leto bu diip Bébé Diouldé mi ngi koy déplacé loo dafay déplacement latéral Youssou mi ngi fermé ak gardam di ko déglu Bébé Diouldé Youssou Ndour Bébé mi ngi mel ni ku bëgg a dem attention Bébé mel na ni ku bëgg a dem Youssou Ndour Bébé Diouldé arbitre mi ngi naan leen accrochage waaye ndax dina yombee noonu Bébé Diouldé mi ngi def ay jeu de jambe parfois mu def déploiement latéral combiné avec des jeux de jambes Youssou mi ngi tekk di ko déglu Youssou Ndour euh, de l'école du lutte Balla Gaye Bébé Diouldé de l'écurie Cheikh Mbaba attention Bébé Diouldé sànn na Youssou attaqué na ko dóor na ko Youssou mi ngi xeex ak moom Bébé Diouldé tooñ na ko Youssou daal di fayu may xeex bi daa di teewoo ci yoon moom Youssou Ndour ñu ngi lewaatoo ñoom ñaar Youssou Ndour Bébé Diouldé ñaari xale yi ñu ngi lewaatoo changé nañu position Youssou Ndour mooy féete suñu càmmooñ Bébé Diouldé féete suñu ndeyjoor attention Bébé Diouldé sànni na Youssou fayu na ñu ngi xeex ñoom ñaar Youssou Ndour Bébé Diouldé ñaari xale yaa ngi xeex Youssou tibb na suuf Bébé Diouldé Youssou Ndour Yusuf mi ngi dox ci kawam attention Youssou dóor na jàppante nañu Youssou Ndour Bébé Diouldé attention Youssou dana ko jéem a plaqué Bébé Diouldé bañ na ñaari xale yi ñu ngi jàppante Youssou Ndour Bébé Diouldé mi ngi koy jéem Yusuf yëkkati Youssou Ndour bañ na jëm na ko zongale mu bañ Youssou Ndour Bébé Diouldé attention Youssou am na ngeem julde Diouldé jàpp sengoor ngi jàppante ñoom ñaar combat metti ñaari xale yi Youssou Ndour Bébé Diouldé ñaari xale yi jàppante nañu Youssou Ndour Bébé Diouldé attention Bébé Diouldé am na lu muy tànte Youssou mi ngi dóor attention Bébé Diouldé jëm na ko dóor tël jëm ko fàqat jëm ko dóor tànk Youssou Ndour bañ na Youssou Ndour Bébé Diouldé ñu ngi jàppante ñoom ñaar attention Youssou mi ngi dóor Bébé Diouldé ngi dóor Youssou Ndour mu ngi koy jëm a dóor ca xabal Bébé Diouldé bañ na ah ñaari xale quel combat entre les deux protagonistes qui sont en train de nous livrer un combat sans merci entre Bébé Diouldé de l'écurie Cheikh Mbaba et Youssou Ndour de l'école de lutte attention ils se na ko Bébé Diouldé door na mbot attention ils se loolu dans le Ndour daan na Bébé Diouldé laa ilaha illallah laa ilaha illallah Youssou Ndour door na ko mbot mu daanu jël bi rëy Youssou Ndour Bébé de laa ilaha illallah xale bi lan la def ni le fils de Balla Gaye qui bat Bébé Diouldé avec une suite spectaculaire doy na waar ñu déglu arbitre lan la ñuy wax waaye xale bi mbot mi ko door rëy na ñoom mbas ak ñoom Lamine ñi ngi aaru ci beneen wet gi Lamine Golo mi ngi noonu ñu yenu ko le coach de l'école de Lille Balla Gaye Lamine Golo fils de Balla Daw daal koy teeru lamb ji rëy na laa il